Brazil. ji ci bis te foo ko màggale woon sa xel war a dar ndax jëfe nga ndigalul Cheikh Moustapha te Cheikh Moustapha daa jëf woon ndigalul Cheikhul Khadim Khadimu Rasul te ndigal nag mooy li am solo yaakaar naa ni ci bëccëg ba léegi ñu ngi jàng xasida di waxtaan waxtaani diine bokk na ci lu ma wax léegi nii ulama yi am na ci ñu wax ni muusa bu sànni woon yat wa te amul ndigal yat wa du nekk jaan joo xam ni dafay lekk talaxuf maa yax fi koon te yonent bu foor la bu bari tur ci alquran naka noonu ci gàttal noox dund na lu yàgg tudde nañ ko saar bokk na ci juróom ulul azmi bokk nañ ci 18 yi jóog boobe ñu jóog ci la naam muy watil ko o jotu naa atay naa ibrahima xaw mi dara jat man na saa ina rabbaka ak imaa wax naa la wax sax yanqoob ba ca nooxan ba ca luut da nga am 18 waaye nee ñu bu déggul woon wastanit fulka bu liggéeyee gaal du dem bu jëlul woon caabi bisimilah yi ma jëraa ba mursaa bu demee diig kon ndigal nu fi daje bis bi borom ci ndigal la ko def ba mu du Moustapha nag ma yóbbu Touba moom ci boppam moo wax nag ni bis bii ku yàlla baaxee ba nga ñëw Touba da bis bi suñ mborom dana la jéggal say bakkaar kon fa lillaahi la amdu rabbi samawaati wa rabbil ardi rabbil alamin nu amuk dolliku nag cheikh mamadul basiru mii sëñ abdoulaad dani luñ ko wax ci lu baax mook cheikh moustapha mii ko wax muy sëñ moustapha alaji baar nee na dëkk bépp ku ko wax yoon wee la ko wax say mag say mag la ko wax taalibe yi la ko wax ñoom ñii seen jaboot ñoo la ko wax nee na ñu ngi bokk di yalwaan yàlla barke yonent beeg seexul xaddim min bokk yaakaar yàlla nga yàgg lool mu ànd ak wér mel ni mbub mi weex tal te bul am mel ndog ba li nga yéene ci sa xol li nga tudd ci sa làmmiñ ak li nga yéene ta xalaat ci liggéey ko ci lislaam jaare ko ci sa maam Serigne Touba nee na yàlla mat sëkk ba kawe sa njort nga def ci lu kawe sa njor nee na at mu jot nii ngay def te feneen fu xew diine xewle nii ngay def Touba gii ak li ko wër li bokk ci Serigne Touba lépp doo tay doo guddi doo naaj na kenn ku nekk xeeboo bisam bu dee bisub Serigne Touba bii nga xam ni yaa ngi ñëpp koo bokk ba pare wala ku mel ni moom mii ba wala nga gën ko koo jege foofu ndax yow sëñ Abdou Khader Serigne Touba ngay seen kilifa bi nga ñëwee fee la toogoon Cheikh Moustapha Mbaxana mii fee la ko bàyyee toujours mu waxtaan ci taalibe nee na kon mënoon ngaa ñëw ci bis bi mbaa nga toog ñu yót la sam añ ñu yót la sam ndox te kon it mu war te kon mu jaadu te kon nga yey ndax sa yëfa ndax boo egsee fii dikk nga sa kër mboolem koo fekk nag nee na kër gi suba ba léegi daa fees del da nga ñaanal ñëpp mag ndax bu dee màggaluk sëriñ Kazu Rajab nii ngay def bu dee makk Kajoor bu dee geneen màggal kër doomi sëriñ Tuubaa yii doo ci tànqam lu benn benn benn benn dooni guddi na dooni naaj na dooni tayyi tey it koy boole ak jël sa wërsëg di joxe te yàlla rek tax te doo ci boole wax te doo ko def tamit nit ñi di ko gis loolu itam sëñ bi wax na ko kon nag nee na njaboot gi xol yi sedd nañ ci yàlla yàlla defal la sa bëgg defal lu kawe sa njort ci barki sëriñ Touba ak Cheikh Mamadou Moustapha mi nga xam ni tey moo wooteel Serigne Touba bis bii law nag Mbàkke li ñu ciy dolli bariwul mooy wax naa ko léegi ku jëf yaa moom. dénkaane luqmaan bi ko yàlla y nettali rasulullah bokk na ci mu ni ko innaha in takku misxaala abatin min xardali fa takkun fi saxratin aw fi samawaati aw fi ardi bi àllaahu gis nga ku sikkar yaa moom ku def naka sudul noona yaa moom ndax yow ma tajjudu kulli nafsin maa amilat min xayri mu'dara waaye wa maa amilat min suu defe naa beneen ah bu dee bu ma jógee Imran su ma ko fàttiwul ndaam fa laa ko bàyyi woon kaafi dana wax maa woowu jëdoo maa amiloo xaadira kon lu waaye def yaa moom ku saraxe yaa moom ku sikkar yaa moom ku wax nag su dul noonu yaa moom sunu borom nee na misxaala dara du ko réer yàlla it du jaawale jëfi kenn kenn ku génnoon ci kër gi saraxe saakub ceeb kenn du ko wer kon si awa bala sekk wala ibra cuun waan lay sa lil insaani ila ma saha wa an sahyihu fa yara wallahi su may gis jasaawul afa kon rafet nañ njort ci ni da wér da nga fi yàgg rafet nañ njort ci ni sa yéene dana mat rafet nañ njort ci ni li nga bëgg da ko am ndax sëñ Tuubaa mi ngay liggéeyal te sëriñ Tuubaa ku dox jëm ci moom mu gàttandu la te ak jëpp ak di taalibe ci gën sa baay sëriñ Fàllu Mbàkke waxoon na ko te nag wayef gii nga wayefal sa bopp tilka daaral axirati naj'aluhaa lillazina laa yuriduuna uluwwan fil ardi wala fasaad sëriñ Basiiru sëriñ Abdoulaat nee na lii mu wax ci làmmiñam am Cheikh Moustapha mii moo nekk ci xolu jullit yépp ak taalib yépp soo génnul woon fii nga toog fii la ñuy toog ba nga génn donte fajar la noo ngi ñaan yàlla di ko yalwaan si yéene mat nga yàgg liggéeyal sëñ Tuubaa nii nag fi may daaneele du gudd nii nag moom nga defoon ci Cheikh Malamine Baara nii nga def ak Cheikh Sidil Muxtaar yàquloo mag ñi dara baat bi ma wax nag na ngeen ko jàpp ah dama ko ni yàquloo mag ñi dara mu njaase da ko càmbar wax da koy déglu dama ko ni yàquloo mag ñi dara seet leen wax bi ma wax bu baax nag bu wóoluwul woon béjjënam du ko wokkutoo mbàkki jërëjëf yal na yàlla guddal soo fan mel na ni sëñ Cheikh képp koo waxloo ci sëñ ah euh, dana ko tële ndax sa yéene day dëppoog yéeneem ak xirte joo xam ni du ko man waaye li am solo rek mooy yaa baax mënut a wees yaa baax yàlla yàlla saxal guddal fan wi wéral teen